daje bu màgg bi am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran karim jibril nekk seet indi na baat bi te xamul baat bi lu muy tekki moom jibril ndax baat bi la muy tekki yàlla mi ngi ko dëxiñ ci nubbuwa yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ci omoplate gauche foofu la yàlla dëxiñ li baat bi di tekki moo tax jibril bi mu egsee ci xunt wi dafa jël laafam yooru ko ci ginnaaw yonent bi teg ko ci nubuwa liy firnde loolu li yonent bi tontu Jibril bi mu ko nee iqra li yonent bi tontu te borom yi muy réeral yenn sari borom yi xam-xam yi parce que yonent bi waxul Jibril mënuma jàng daf ko wax ne bokkuma ci ñi war a jàng waaye oustaz Xaadim léegi wax nañu li tax yonent bi bokkul ci ñi war a jàng ndax moom moo léegi eh, tari surat arrahman di wax ne arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu albayan alchamsu walxamaru bi xusbaan والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ngeen baal ma sax bi ma aaya bi ma bëggoon taxawee rek mooy yàlla fi muy waxee marajal baxrayn yaltaqiyaan baynahuma barzaxun laa yabgiyaan aaya boobu ginnaaw bu ñu waxee allama alquran yàlla moo jàngal yonent bi alquran karim ginnaaw bu mu ràngoo manto yërmandeel te oustaz ñu ñëpp lañu dalal suñu xel rafet njot ci suñu dem ay jana ñun ñëpp lenn rek moo ko waral mbokk yi damay seet bi kenn rek ci ñi liggéeyal yàlla ci kaw suuf fi ma génne ci turu Cheikh Ahmad Bamba di maamu ñi ma àndal maamu sëñ Bass Mbacke di maamu doomi sëñ Murtala mi teew sëñ Ceexu la di kenn ci ñun yàlla moo boole ak ñi sant Mbacke ñi ma bokkal jamono ñu di ma gis sopp ma ma sopp leen bokk lépp ñu mën a sonn ci man may tamit mm-hmm. may yéeg loolu ci suma xol ndax ndax nag ñoom tamit dañu ràññee sama diggante ak seen baab dañ ko ràññee de ku mel noonu nag Cheikh Ahmad Bamba yàlla du ko gàcceel mukk ci na mu ñaanee moom ne yàlla bëgg naa nga yërëm jàmm yépp yàlla du ko nenal mukk li koy finde ci mujjantalu jamono mu nekk njaarim ñu ñi di gént ci bassin arachidier defar gerte defar dugub di gént jëmmi Cheikh Ahmad Bamba saa su ne ñu koy gént yenn saa yi ñu gént gis kalam bi ñaak seen seen tool mu nekk yenn saa yi jamono joo xamante ne njéeréer yi dañuy jóg gént la gis loolu mu ñaak seeni tool kàlla gi jékki-jékki rek ñaak tool bi ci gént te fekk jiw ji ma nga ca biir ñu ngi am yaakaar njéeréer yi dugg ñu commencé jax-jaxi seen xel dem ci gént gën seen xel dalaat njéeréer yi di leen romb duñ mën a jaari seeni tool ba yàlla def sutura ñu góob jaay amoon yéene lañu am ci ci seeni sàq daañu daw yóbbul ko Cheikh Ahmad Bamba ca Njaaréem ñu koy yóbbul dugub li ko yóbbul gerte ci jamono jooju tubaab bi di jaaxle ndax comptoir yi mu am moom tubaab bi nasaraan ci jamono jooju ëppaleetul li addiya bi ñoom indil Cheikh Ahmad Bamba ca njaaree camion yi ñu ñëw rek ku ne bàyyi ko te da ngay nekk tijaan nekk murit nekk nekk leneen sax waaye soo bayee ba noppi rek da nga daw yóbbul ko mu bind ndeysaan mu wax ña nekkal ca njaareem ne leen lu mu bëri bëri su fi ñëwee bu mu fanaan ci kër gi ci tab googu oustaz Xadim di wax léegi lu lu mu bari bëri lépp lu ñuy jël delloo ko ñëw di doolee ci jamono jooju ndax bay ba mu bind mu neex ko sax xolam nit nag su fekkee ne wax na ne lii mënta ne di wet di koo xamante ne nee na mën naa ne ndax kooku xam na cafka ga dafay réer ñàkk xam cafka moo tax mu ne mënta ne ñàkk mos mu wax talabtali rasulullahi fawqa matlabi min allahi rabbi wa rajala min xeer ay yonente bi salallahu alayhi wa sallam fàggul nga ma ci sama borom lu kawe sama njort te sa benn ñaan yàlla du ko delloo Cheikh Ahmad Bamba moo décidé dem ci géej li ko waral mooy daaju asiru waxuma bind bi mais sooy dégg daaju asiru moom moo ko inventé boppam soo ko dégloo ñu koy wax ci kuréel dangay ngay sentir motooru bateau d'abord mu déclenché génne saxaar bi ci cheminée bi moo tax mu indi. naaj bi ne asiiru loolu bi la lay maa la abraari hiina asiiru nga dégg mu mel ni hélice bu nekk ci ndox di wul léegi di jógee gul ndar de moo ko imposé tubaab li ko waral aussi lu gàtt la lii dafa wax léegi ne dañu war a góorgóorlu jëm ci jub ci sàmm kàddu nag surtout dafa départ moom ca ca ndar wax ni dafa bëgg a liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam mu wax nag ne yàlla jeego bu ma teg sama tànku ndeyjoor jeego bu mu teg beneen bi dina fekk si be moromam ngir rek ma dajeeg sama waaj sey ci moom nekk natt yaa ngi ci kanam léegi oustaz Kane dafa wax ne néeg ba ñu ko dugal ci Ndakaaru fële ca boori Cap Manuel pont bi pont leen dafa dugg ba saf ca tànk ku tànku day jox mu doonoon ci ñun dañuy tëb yóbbu dellu ginnaaw xelam daal di dem ci bi mu joxe woon le serment divin kenn ku ne ci ñun day dox ci yiw rek wax yiw jëf yiw leneen loo ci dégg lu dara damay wax sama soxna di ko gërëm aussi si taxawaayam musuma ko def ci tànt waaye li tax ma def ko mooy c'est une femme courageuse waaw musuma ko wax nag soo leen seetlu waaw musuma wax loolu elle est courageuse waaw kuy kuy nitu dëgg rek war ngaa mën a wax loolu ci moom courageuse parce que nekk ak man aussi daa mel ni yombul dafa mel ni yombul waaye soo amee nit mu mu muñal la ci dëkk muñal la nga def ci kaso bi fukki weer ak ñett muy déplacé wu ñëw su ñëwee yónnee la ree ci mbaax teel la sa njaboot nag loolu guddi gu mel ni baax na ñu seede ko. Euh, dafa am benn bis su ma juumlee xista bi maa ngi ko déggee woon soit ci oustaz Khadim ma déggee woon ko ci benn waxtaankat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di séddale am ku nekkoon ci ginnaawam di mel ni kuy bëgg ñàkk bif yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba loos bi deretal te tey jii ci ñu kuñ ci bif sa yére soo tourné da ngay nekk ci gànn da ngay bëgg xeex da ngay bi mu bi yonent bi ko njëkk a def mooy yónnee ko ree ne ko mooy sa aajo mooy dama gis ne yaa ngi séddale te maa ngi waaj a ñàkk nekk bi yonent bi di séddale am na lu desoon